di rafetlu seen ànd ak seen télévision TV mbokk yi dal leen ak jàmm gannaaw xaatim bi nga xam ni sëriñ Saliou Thioune Gueule Tapée di xalifa kuli cantankound daal dina koy bind jagleel ki nga xam ni mooy euh, euh, ki yor kàddoom di sëriñ Khadim Thioune ñi ngi xamle ne lépp loo xam ni mu ngi bootu si njabootu Cheikh Béthio Thioune ñu moytu li nga xam ne mooy jëw yeek ak euh, wax yu teguwul fenn tey xamle ne ñoom ñëpp nañu dëppook li nga xam ne mooy ndigalu xalif général des mourides te dëggal ko te muy dëggu loo xam ne lu dëggu si ñoom la ndax ñoom ñee dañ jàpp ne ndigal rek mën a gindi moo leen mën a yóbbu fa ñu jëm tey xam ne ne lépp loo xam ni sëriñ bi teg na ko si la ñuy dëppoo ndax loolee la sëriñ bi ci cuuna jàngal te loolee si la ñuy dox te lépp loo xam ni si lañ namm dox te war ko dox dina dëppoo li nga xam ni moom la sëriñ Mountakha Bachir di xalif général ku murit te daal di koy digle loolee mi ngi bàyyi si xaatim bi nga xam ni sëriñ Xaadim Cuuna di yor kàddu sëriñ Saliou Cuuna daal na koy fësal gannaaw coow lii wéy di am jamono ji si diggante soxna Aïda Diallo mi nga xam mi ngi wéy di teggi ndigal lépp sëriñ Xaadim mun Mountakha Mbacké bañ a dem ànd jéeg li nga xam ne mooy waa kër sëñ Saliou Thioune ñu wëyal liggéey Cheikh Béthio na xaati boobu génn na ngir waxale ne ngir xam ne ne képp kuy këttaakoon na nga wëyal li nga xam ne mooy ndigalub sëriñ Mountakha Mbacké bi ndax ndigal rek moo la ñuy jëmale sa sëriñ Touba bi nga xam ni mooy seen yaakaar tey ëllëg jërë ngeen jëf mbokk yi di leen jox di daje beneen yoon